bëgg sanni moi, rek mooy gannaaw bi ñu sante yàlla ci tey pour la première fois Nous organiser ligne la journée de l'excellence pour jox sunu ay doom diplôme waaye jox leen également ay cadeau ndax seen njàmbaar ci njàng mi lii nag bu amee tey sunu jàngalekat yi nekk fii ci commune Notto Diobass te ñu nekk ñaar téeméer ñu indi fii lu mat juróom téeméer ak juróom fukki xale pour ñu jox leen ay décoration man mi nekk maire commune Notto am na mbégte bu rëy kon ci tour askan wi maa ngi leen ci monsieur Je mi euh, président commission organisation ma koy yóbbante ko tonto Jobaas yëpp waaye ci ko Sénégal yëpp di leen wax ne ñoom seen liggéey liggéey bu noble ndax ñoom ñooy dugal ci sunu jikkoy doom ay valeurs yoo xam ne ñooy nekk seen gànnaay lu mer ni mérite

kon excellence nek na lo xamné ne war nañ ko diko cultiver diko ko ci kaw say suné ñu ci gor gorlu amna borom xam-xam bu né kuy wut alal du alal mo lay indil siw du alal mo lay indil succès déedéet nee likoy indi moy la liberté de pouvoir créer de l'argent la liberté de pouvoir gagner de l'argent liberté boobu nag li koy indi mooy xam-xam liberté boobu li koy indi mooy connaissance te connaissance fa lay jógee ci école lay jóge lii ki ko waxoon mooy Nelson la kon maa ngi wax sunu doom yi ne leen jàng mooy gànnaayu doomu aadama xam-xam mooy gànnaayu doomu aadama ndax soo xamulee ku réer dina jël réeral la koo xamulee ku sànku na jël sank la té jamono ji ñu ci walu sécurité nek lo xamné lu am la war nañu fexé ba jox xale yi gànnaayu njàng gànnaayu xam-xam lolo waral monsieur le directeur monsieur ñaw yeen yalla leen mëna a fay yéen i jàngale nee naa sànq ko man dé kay yi ma du yoron bima nekké sem ak sem 2 ba légui ñu ngi ak man té fatéwuma leen waye kay yi ma université wax dëgg yalla loolu li muy wane mooy jamono jii xale nekk diggante CI ba CM2 li koy marqué ci jamono jooju ba la nekk kon yéen ñi leen di jàngal ci jamono jii yàlla na yàlla fay mbokk yi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu waxee ay neexal mel na ni équipe pédagogique maître yi lañ ko jox mel na directeur yi lañ ko jox mais mel na ni aussi parent yi lañ ko jox parce que xale comme euh, on l'a dit tout tantôt euh, dafa am loo xam ni du ko mës a fàttee ci ci ci dundam ñu ni kat xale bi jox nañ ko prix euh, monsieur le maire Alioune Sarr moo ko jox monsieur le ministre Alioune Sarr moo ko jox day doon loo xam ni xale bi du ko mës a fàtte ci giirug dundam donc kon loolu euh, dañ ciy sagal euh, dañ ciy remercier monsieur le maire di ko ci sant di ko ci gërëm parce que teggil na xañ na parents yi loo xam ni gis ngeen loo yi xale boo jox saak jox ko li nga xam ne nii mooy nekk ci biir école li ñëwee ci biir saak bi muy matériel de géométrie muy ay cahier

dana ko jox imprimante ak euh, ordinateur. kon loolu tam ñu sant ko ci di ko ci. ñaata ah, ñu ngi ñu ngi ñu ngi primé euh, juróom-ñaat téeméeri élèves ak juróom fukk ak ñett euh, donc kon loolu du loo xam ne nii école bu ne jël nañ fa ñett ñetti ndongo daara daal di leen jox ay ay ay neexal mais li ci gën a neex gis ngeen ko élève bu ne dina am saak dina am li ci biir ay cahier dina am ay livre dina am ay euh, ardoise ak euh, matériel de de de kon nag loolu tam eh, gis ngeen tam xale yi macha allah ku ci nekk am nga sa t-shirt eh, donc kon sant yàlla ah di gërëm euh, yàlla bu baax. di gërëm aussi lu aju ci waa ci cantine scolaire yi man ak Babacar jot nañu Babacar jot na couvrir une suñu benn manifestation à Kër Ibra ñu mu doon loo xam ne nii ah cantine scolaire parce que boo koy def pour xale yi nga xam ni dañoo.

donc kon lolu euh, sante yalla la sante aussi ñi nga xamni ñoñuy jappalé ci cantine scolaire yi muy ONG bi ñuy wax euh, Elvia mais di ñaan aussi ministre bi comme euh, li ñuy wax rek lu baax nga yéene ko ñëpp parce que généralisation bi aussi day tax rek ñang manam ñu fexé ba yaatal ko ba école ko noto yëpp mën ci mën ci jot kon lolu tam fay baax en tout cas kon par ma voix ñu ngi lancer ben appel ministre Aline Sar, pour que nous mu ñu a cantine scolaire aussi mu jàppale parce que tout simplement l'éducation bi ci euh, goxam est ci